mbokk yi kon Père Birahim lañu ñu fas yéene seet si ngir waxtaan ak moom comme ni ko sëñ Bass waxee ak tupi euh, Père Birahim maa ngi lay nuyu. waa jërëjëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu mbooloo mi yéen ñëpp waa Wassare Lamb di commencé ci kilifa gu mag ca kaw ba ci yéen ñu basak yéen xaay bi ñëpp ak tupeeg xëy na tey jàppaguma seen tur yéen ñëpp parce que tey la ñu gisante waaye maa ngi leen di nuyu di kontaan trop nag seen dérangement euh, bu ngeen dérangé woon nii rek ñëw waxtaan a yéen rek ma waxtaan a yéen waxatuma laa ngeen ñëw nag ëmb teraanga ju toll na le dégg nga ëmb ko indiwaaleel ma ko dégg nga indi ceeb indi diwlin indi la cee war a ànd yëpp ngeen àndale ko ci loolu ma di leen sant di leen ci gërëm bu baax parce que teraanga du tuuti ki la yéene teraanga jënd ko indi jox la kooku yéene na lu nekk kon nag ma sant leen ci gërëm lool. te itam ngeen ñëw fekk ma ci sama domaine yi tamit muy làmb nga xam ne sama ndaw yëpp moom laa ko fooyee tàkkusaan bu rëy bu ne am naa ko fi waaw tàkkusaan bu rëy bu ne am naa ko fi te bis bu ñu àggee ci waxtaan wi di xam yan tàkkusaan laa fi am ak yen bis laa fi am waaw kon yooyu dinañ ci ñëw yi waaye daal kontaan naa trop ci ngeen teew sama kër fii tey and fii ci unité de yàlla dafit may délégué de quartier bi boole ci waaw quartier bi it wóolu ma dénk ma ko. gannaaw yàlla may ñaan ñi seetaan ak yéen ñëpp ngeen ñaanal ma ci yàlla defal ma ci réussite waaw. adduna bi yëpp rafetlu xam-xamu per Birahim Ndiaye bu waxee ci làmb ñëpp xam ni père mii li muy wax maîtriser na ko li muy wax miin na ko sa diggante ak làmb lan la. waaw di ko sant yàlla rek xam nga doomu bi dina yëngu ci dara yàlla ci parce que ñi moo doon bëre ndool ñenn ñi nekkatuñu fi ku mel ni docteur Faye bëri nañ ñaar yoon génn naa dina ku mel ni Boy Niang bëri na ñett yoon génnaat na dégg nga Balla Gaye nañu ñaar yoon mu ngi assan Assane Mbaye Fall bëri nañu ñoom Ousmane Ngom ñoom Samba Diaw ñoom Souleymane Diaw ñëpp bëri na ma ak ñoom ñoom Manga demi ñeenti yoon ma ak moom Ambroise Sarr ñaar yoon Mame Ndiambar ñaar yoon ay ay Laurent Laurent Daba ñaar yoon ay ñeneen ñi moo lim daal bëri na fi waaye tey jii àddina dox làmb tey ba tey làmb di ma teral parce que làmb di ma teral mooy bëggoon naa ko di ko jox àqam di ko fooye parce que jom laa ci duggee woon ak bëgg ko ak di ko fooye di ko foyee mu bëgg ko lool di ko jox àqam àq boobu ma doon wax nag làmb fay na ma ko xam nga nu ma ko fayee yàlla jox ma nit ñu baax. ay nit ñu baax yu ma ci am yoo xam ne yi sama carrière ñii génn nañu àddina ñi ci génn àddina ku mel ni grand sorcier ak ñeneen ak ñeneen maa ngi julli leen ñaanal yàlla xar leen àjjana fa ñu toll. dégg nga yàlla nañu daje ak yërmande borom bi ñi fi des tamit ñu ngi seq àddina ba barki dem El Hadj Ndiaye fi la reere fi la toog boo gunge ko ba dem te ñu ànd sama carrière yëpp kon tey ji loolu am ci nit ku baax mooy bénéfice bi te làmb woon kon teral la man parce que amul fen fu may dëkk ci dëkk ba États-Unis mais fa dem xoolal lépp ma yomb lépp ma dem boto ma jële fii yóbbu ma visa dem dellu siwaat fu may dem avion ma yóbbu te fayu ma dara loolu lépp làmb ma ko teral fii ne fu ma génn ci dëkk bi lu may toppatoo nii lay yombee ci man soo sooy sooy dem fenn sax bu ma la recommandé demal ana fan nga jëm ne demal ci diw ne maa leen boole ñu taxaw la ko loolu day na sant yàlla loolu doy na sant taraanga la loolu taraanga gënu ko rëy foo génn ñu teral la ñëpp jox la sër keroog bi ñuy wote quartier bi boo fekkoon ni ma gars yi woteelee ah nga kon tey jii kon nga xam ne rek la may ne ma ne ba léegi média yi di ma woo journaux yi di ma woo télévision yi di ma woo dégg nga te te wax dëgg yàlla ñu ma gën a doon mbërëf rek a fi ne ak ñu ma ëpp xëy na yàlla mos baaxe loolu ma sant ko yàlla rek waaw. yàlla defal la loolu euh, jaarale ko ci làmb Père Birahim fi mu toll nii xale yi nga xamante ne dañoo bëgg a doon mbër bëgg doon champion lan mooy lan nan lañ mën a def ba doon mbër ak lan lañ mën a def ba doon champion. waaw doon champion moom toujours damay wax ñaar làmb euh, champion yàlla koy def ci nit. nit ma nit ma bëgg doon mbër rek taxul ko doon mbër mën nga koy foye mais champion. yàllaa koy def ci nit rek maanaam ndi président de la République jafe nga xam ne ñëpp mënuñu koo doon dégg nga tey jii kilifa gi ko nekk nii ba mu koy nekk xalaatu la ba muy jàng xalaatu woon dina ko mas a doon. yéen ñi tey jii yor caméra bi di liggéey rek bi ngeen nekk école di jàng xamuloon woon ne tey àddina dina dem yow ba nga nekk euh, caméraman kii nekk. Euh, reporter kii nekk keneen nekk leneen ak leneen leen métier yi ngeen dox ni tey ji am na bi ngeen nekk école jàng xalaat xalaat woon di ko doon mais yàlla mooy euh, mooy euh, orienté nit ki ci nangam ne ko kii lii lay doon yi waaw boo ko doonee nag ah ca lay jàng da yor jikko yoo xam ne nag pour nga mën koo doon nag mën koo sàmm parce que carrière su la ko yàlla joxalee ngay daan am nit succès bi den mën nga dabare succès wu si la lool làmb ji jeex nga ñàkk ñëpp waaye làmb ji mën naa jeexit nga dese ñun ñëpp loolu nag dundin la laaj dundin. ban dundin. très bien ça dundin gi mooy ngaa da ni ci ngor ak kóllëre loo am bokk ñoom lu ñu am nga bàyyi ko ak ñoom loo am bokk ñoom kooku addina bu làmb jeexee ña nga amoon rek ngay waat waaye loo am mu yem ci yow kenn ñee contact yow duñ ci naan boisson duñ ci lekk duñ ci naan loo am yemal sa biir bokk bis bu làmb ji jeexee rek nga ñàkk ñëpp. parce que ma solo ma kenn njëriñ mais teraanga day weesaloo. tey xew la nga ma ndawtal ba boo léegi xew dama lay ndewtal jox nga ma juróom beneen yoon boo ñëw fukk laa lay indil ma ñaar fukk suba boo ñëwee ñeent fukk laa lay su ma ko amul it naa delloo li ma joxoon ñëw nga sa kër teral sama njaboot ba teral sama njaboot en tant que supporter ndax kontaan may dinaa fexe am xaawal dem sa kër teral sa njaboot boo siggee xool ma ma siggi xool la doo wax nag parce que boo waxee ma wax boo defal laa teraanga ma ne defal laa moo tax teraanga dañ koy sàmm day weesaloo loolu mooy tax nga àddina jeex nga ñi nga waroon a ñàkk ñëpp dootoo ñàkk kenn ñëpp ngay téye waaye li gën a ci àddina nga def carrière ba pare carrière ba jeex nga ñàkk ñëpp forum bu rek kenn du la xameeti sax te loolu dal na mbër yu bari te booy yu bëree ngi fi maa ngi leen di dénku bàyyi la bàyyi leen xel ci ñi ngeen di àndal parce que ànd ak ni bis talloo lekk talloo naan tallo reer talloo def dar lépp pour nga am dam ah moom daan diw daan na rek ci am solo nga bënd sa cent millions wala sa cinquante millions wala sa quatre-vingts millions tëdd ko ci bokk wàcc leen loolu jaaduwul ko ci def da nga ci am bis. ma di leen ko moytuloo nag moo tax li ngeen am na ngeen fexe ba ñu ne ci seen ginnaaw di ànd ak yow stade di ànd ak yow contact di ànd yow xëy du ñëpp waaye na cay def taraanga ñoom ñu gis ci seen bopp waaw gis seen bopp dafa am solo waaw man koo ma sàndal jéppi woo ma Père Birahim dafa am loo xamante ni saa yu ma la déggaan da koy da nga koy mbër fonkal say ñaari waajur mbër du wor te ku wax général ku wax rek làmb ne non mbër moom du xarit du mbokk du àndandoo parce que mbër doy wor lan moo tax ngay dëkkal loolu seen nopp. waaw ak mbër rek ak i mbërëm nit doy du waa ah, mbër du wor am na du ñëpp ku nekk bu doon na ñëpp a am ñu gedd seen wàll. man damay fexe ba bañ caa bokk rek damay fexe ba jikko yu baax yi nga xam ne moom lay nit ku baax di am ma fexe ko am. parce que bu mu waxee ñetti jikko wala ñeenti jikko juróomi jikko yoo xam nit ku baax noonu lay mel nga ñu wax ko te yow amoo ca benn bu nekk ci yow xam ne seetaatal sa bopp bu ñu nee du wor ngay ngay wor xam nga ne bokkoo ci xam nga ne bu ñu nee nit amul ñaar waajur say waajur tegoo leen fenn amoo ci ñàkk nit amul kóllëre nga ne kii amul kóllëre de de bokkoo xam nga ne nekkoo ci wax dangay xool jikko yi nga xam ne ñu ngi koy wax dégg nga te koy teg Saliou Sall maa ngi koy nuyu de passage yàlla na ko yàlla yokk wér moom Mbacke Sylla ak ñoom Alioune Mbaye yëpp dama demaa li déglu fii sax fajar gu ne jikko yu ñu wax ci ci baax damay xool ndax mu ngi ci man wala déet su nee ci man rek dinaa ci gën a góorgóorlu xam ne maa ngi woon ci siraatul mustaqim mais su ca nekkul damay xeex pour jéem ko dindi jéem a changé man mii kat maa jaar bi ma jaan baaxul woon naa jéem a joor yoonu baax te wor inna alxuraan ñu wax inna allah laa yahdi kaydal xaa'iniin alxuraan a ko wax li ma damaa netteel rek waaye borom bi taala ak ay sax li ko tudd sax ci dafa bari ci wor mos leen gis doomu aadama li ngeen doon doon xam nit di wor ba xëy am ndam amul fenn loolu bu amee rek dafa mel ni alxuraan waxi kese la moo tax ku war dañ ko gis moo tax yàlla lu mu ñu ter rek bu ko bàyyi war a gis conséquences yi moo tax tere nañu njaaloo tere nañu naan sàngara tere nañu euh, wor yooyu yëpp boo ci def rek da nga di nga gis conséquences yi xanaa nga teel a tuub daw teel da war ginnaaw teel a war na xam ne li nga nekk baaxul moo tax yooyu yëpp jikko yi mooy xale yooyu nag man leen ko tere di ko tere sama bopp parce que soo jiitoo ci benn po am ñu la ci bëgg am ñu la da ngay wax lu leen di jariñ loo xam ne buñ ko jëlee ci yow ñu ne maa jëlee ci diw mu ne nangam de maa jëlee ci ñëw ko man ni may jëlee ci Salim Sall di jëlee ci Salim Bay di jëlee ci Mbàkke si la ay loo xam ne yi la ñuy wax dama koy jariñoo loola du ma jariñ la te dinañ ci am tuyaaba dañ ci am tuyaaba parce que ñoo wax lu baax ma roy ko jàpp ci yar ci sama njaboot it góor góor go ci loolu moo tax toujours li bon ma di leen ko tere am na ci boo xam ne bàyyi nga ko dama leen wax bëre du métier toujours dama leen ko wax moom laay terminer toujours di loolu. parce que boo gisee ma ne leen bëre du métier euh, li nekk ci Sénégal ci mbër kenn xamul nu mu toll soo demoon doog tey yi Modou Lo surtout fa ëpp fa est-ce que li moom ñëpp am nañ ko demal wékkiri Balla Gaye moo fa man mënu fa waaye li mu fa am est-ce que ñëpp am nañ ko li muy fay est que ñëpp fay ko nañ ko demal Fass Gris Bordeaux li muy fay ko ñëpp nañ ko demal wékkiri Boy Niang bu ma la ci doon limal loolu lépp noonu la kon wërsëg wi yàllaa koy joxe moo tax dama koy boole ak sama métier ndaw day am métier da ngay ci jàng na nga jàng su sekkee sama xol neexul ci jàng teel a la wuti métier parce que damay wax métier mu ànd ak njub métier mu mokk ba pare ànd ak njub doo torox ci teraanga rek ngay dund ba xëy ngay dee maa wax lii lii koy wax booy <laughs> téere laa ñëwaat tuuti parce que yor nga ay mbër yoo xam ne ay champion lañ mais ko ci yor rek. ba làmb am ci moom yaakaar rek soit mu jógee ci écurie ba dem ci beneen écurie wala mu bàyyi làmb euh, loolu lan la. waaw père moo neexul a nekkal. per neexul a nekkal. lu tax loolu. ay saa nangoo entraîné nangoo jàng bëre nangoo li ngay def nga nang koo jox ak xam noo cee réussir doo dem kooku boo ànd rek moom doo am ndam yaa ngi dégg li la beneen bi wax naa la wor wax naa la ngërëmal waajur wax naa la nangoo liggéey. pour nga teel da ngay dool teel dool nelaw balaa 4 heures du matin nga dool nelaw daal def tracé bu gudd tracé ñëw sangu dem liggéey bu ngoor jotee nga sol sa dem contact boo ñëwee contact contact ñëw ci écrit bi xool ñu fa gën a naqaree daan ngay bëre ak ñoom ñu di la daan nga di leen daan ba xëy woo koŋ ku fi mën a bëree noonu nga bëree daal di wut nag beneen ndaanaan bu ne ci sa wet nag ndaanaan bi ngay wut si wet day fekk mopp la xam-xam xam nga ñun lu ñu tardel booy dañuy fekk kooku euh, euh, euh, gis kuy ta kuy ra kuy xamu nuñ ko waxee sax gis kuy root kuy ku jëm ca rootukaay ba nga topp kuy taxani maanaam koo xam ne kii menuisier la jàng wala maçon la jàng nga di ko kaay ma réparé ma sama oto bi fu muy jëm yow mosoo bëre mosoo takk ngemb mosoo koo foyee nga ubbi yëkk ne da jàngale bëri koy jàngal mu ngi mel nga ne sans papa docteur la te jàngoo docteur koo opéré mu dee. Ah, waaw dëgg jàngoo ko. médecine bi jàngoo ko. koo bindal garab ñi moo sax bindal garab waaye parce koo bindal garab buy naan di dee. parce jànguloo ko. kon nit day dax lu mu jàng lu mu lu mu foye am ci don ba pare foye woon ko am ci daal loolu nag mu gën a të të tëyal suñu làmb yi waaw ñi gubbi écrit ñi cëpp ñëpp dañoo am chance su nekk ci benn koñ rek benn booy fël ñu ànd ak maay entraîneur maay def lii maay def dara naa ko wax benn mbër ñu daje mu daan daje mu ànd dem bëri daan mu ànd ak mu daal ñëw lëng benn booy non père kii mooy sama coach ma ne ko ah, eh, yaay ku kii diw mi ma leen waxoon turam ñëpp xam nañ ko mais comme mbooloo jaruma ne ko ah yow yaay entraîneur ma ne ko waaw ma ne ko booy da ngaa mbàppata mu ne ma déedéet ma bëri ngaa ren mu ne ma déedéet ma ne ko noo mën a jàngale ponkal mu tani noo ko mën a jàngale mën nga ko yokk xalaat xel mu rafet mën nga ko jox xalaat bu rafet wala xel mu rafet parce que mën nga am jox ko waaye jàngal ko xam-xam bu bëri nga xam ne fii buñ la fi àggee lii moo la ciy génne fii nag bul ko mayee buñ la fa àgg waaye buñ la àggee lii moo la ciy génne ah loolu loolu ko am xam rek ko mën a jàngale waaye ubbee kër te mënoo jàng koy dem doo daan <laughs> moo tax mu li ne léeg-léeg nga gis mbir mu ni pëxër ñett dem yoonam ngeen defee dem na tuuti fa kasal ko xam nga lu ñuy je dañ ko liggéey ak dañ ko sot ak dañ ko tojal ak dañ ko gàllaaj dañ ko kenn gàllaaju la man mii sama suuf escalier saako laa ci yor su doon taxa daan ma jox ko sama doom ji ponkal la moo nekk yéen yëpp mu ngi nii nekk bu fi nekkoon ba gisee da nga naa ma père kii tax bëri jiwul mënul bëri ba mu nekkoon dama kon tegal ci suuf bëri du sa wàll mënoo ko waaw looloo looloo waral fi mu toll nii mais père mu bëgg a dellu si waat tuuti rek ci ñenn mbër yi nga xamante ni tey. Euh, jóge nañ ci sa. waaw bala ñuy des si xam nga dama am sax dama fàtte parce que bi dafa gudd mooy euh, sama booy yu bëri xam nga dama ne père neexu la nekkal waaye tontu woon naa ci parce que nee naa la père ku jubul doo wax dëgg di fen di war nanguwante ne du ma la yor parce que du ñu am ndam loolu rek la. waaye père du lekk dërëmu nit. kenn mosu ca jóge nga dégg ci rajo walla télévision ne père dafa yëy sama mooy nag du ma demal mbër sëriñ ku ci jot avance damay teg sa loxo yaay ak sa papa ñu toog may ne diw mii diw lay bëreel temps lañ ko fay xaalis baa ngi nii lii managé bee ko moom lii moo ko moom su bëree ba pare ma ne ko lii dañ ko téye lii ko ci dese mu ngi nii booy dema lu bi compte nag loo am def ca jëndal ceeb jënd diwul defaral kër gi ba mu neex la ci des nga def sa bont sa sa compte saa yoo amee soxla dem faj ko doo ñaan doo woyaan doo jëli fi jàmbur ah yaakaar naa ki la teg loolu dimbal na la waaw man de noonu laa daan def man moo tax pe may la peer neexul neex na maa nekkal waaye neexu maa nekkal ku bëgg lu baax nangu naa nekkal nangoo liggéey baax na terrain bii nga ci ginnaaw fajar gu ne dama daan yëg quatre heures la ma Saalum daan fekk fii maa ko yee sama téléphone dégg nga la su ma ko yee mu ñuy liggéey ba huit moo tax gis nga boobu ni mu neexlee bonkal yëpp la daan Pape Modou toj fii mu toj fii gis nga ko. waaye ko tàkk saanam ba gargam boose ah, stade Demba Diop maa ngi toog maa ko yóbbu ak moo kër jën nag. moo assurance nag. moog goro Fall nag waaye yow moog waaye yow moog euh, kii euh, Aliou Seyde nag waaye booy boobu dama loo ko teg mu yanu ko waaye nag xam-xam bu ñu la joxee xam-xam jàngale ba koy dem koy servé nag mooy séré gi door a mooy téye nag li nga am soo ko téewul da lay rëcc te bu rëccee dootoo ko dam mukk léegi la laa jóg fi ne la booy ndaw rek kay dëgg dama naan xëy dem fa dëkk maa ngi nii mënatuma ko tey li ma xëy dem fa terrain d'espoir maa ngi nii sama tànk yaa ngi dara mënuma ko fi mu ne waaw ngoog léegi ñu jógee ci Saalum Saalum mbër yi jot a jaar sa loxo Saalum Saalum Pape Morlo euh, nu mu tuddati Moussa Dioum ah, ay champion yoo xamante ni père ku ci nekk ba tey mënoon na tëj làmb lan moo waral dem gi ñu jékki-jékki rek dem jóge ci loxoy père ba léegi bërki démb la fi jóge moom tudde na ma doom yaayam jàpp ma papaam teg ma doo cër parce que xam na fi ma ko jëlee xam na fi ma ko yóbbu moom sama doom bopp la bu baaxee bu bëree bu bëree mbër la bu bëree bu bëree sama mbër la bëriwul sama mbër la xam nga ki ma gën a décevoir tuuti mooy Moussa Dioum hmm. Moussa Dioum jooy naa rankooñ sama rankooñ wàcc ndax moom. Hmm. parce que li tax booy Moussa Dioum euh, dama gisoon ci moom benn talent boo xam ne bii mën a bëre gi mën a fecc gi dégg galan mën a fecc mën a bëre mën a xeex xam nga loolu mbër bu ko amee. te itam am am am li arab di wax fasaatu lisaan da ko am mooy maanam dafa mën a wax ci média am na mbër yu bari fii toj nañu la mais mënuñoo wax am na ñoo xam ne ñi dégguñu galan bu ndënd yi jaare nii ñu jaar nii xam nga kooku dugal mais dégg galan geeg mën a fecc gi ak mën a bëre gi ci moom la wañu ko waaye nag moom euh, am na daal lu ko détourné parce que xam nga média tamit euh, taxaw ci di xas nit du ko def di yàq der du ko def waaye xam naa ne ba mu jógee ci man yàq na ci lu bare bëri parce que la ma naroon liggéey moom kon benn du mbër duñ ko tudd kenn amul ñetti mbër wala ñeent yu ñuy tudd fii ci làmb te tudduñu ko waaw fa ñu jaar bu mu jógee fii yëpp bëri na nag waaw am loo xam ne wax naa ko ci télé bi am naa xam du ma ci ko di ko wax que xale la boo xam ne fu ma gis jox na ma cër waaw parce que man du ma ànd ak gone mu gis si man ñàkk fu la mag sax du ma ànd amul benn nit doomu boo xam ne da may gis ma yabe wala yow ñàkk fu du ma la ko may samay soxna du samay doom du samay xarit du samay àndandoo jamais nga gis ci man ma la loo loo ba yabe du ma la ko may ah non non non non parce que ni ko respecté mu respect la waaw. waaw tey mu jugee mu jugee ci yow est-ce que instant yi ñi jóge woon ci yow yëpp père comme ku ci mel ni Moussa Dioum ñu waxtaan bu ñu ñëwaatoon ci yow bëgg a doon champion ci làmb mën nga koo def. du ma ko mën a téye du ma ko mën a téye naa seq ak moom jàmm rek mu toog fa mu toog parce que bi mu fi jógee yàgg na te léegi mag gaa ngi ñëw si doole jaa ngi jeex la ma yaakaaroon ci moom euh, mëntu ma ko gis ci moom. waaw parce que tolof tolof yi mu ci jaar yëpp bari na loolu yàlla daal moo xam maye mënatuma ko tolof tolof na tenter chance ma tenter sama chance rek waaw Pape Mor Lo nag bàyyiwuma ñoo nekk ba nag mais États-Unis la nekk. lamb ji dafa freiné temps yëpp nag mu am visa am dem États-Unis dem am ay kayitam di dem ak a ñëw temps yi mu ngi fi léeg na daba at bële passé delluwaat fii de mu ngi waajee war a dellu est-ce que delluwul sax parce que ñëw na fi barki démb woo naa jabar ji mu ne ma dafa tardé mais dafa war a delluwaat xam nga kooku tam ba tey baax na parce que làmb may na ko loolu moom am visa am dem États-Unis di liggéey parce que làmb ji tam dafa taxaw. ñaata champion nga yor sa équipe. fi mu ne daal ay xale laa yor mbër feeñe gu ci nag neexu leen nag toujours ma wax leen ko ne làmb ji école bi mbër mi ñëw ñëwagul ku nekk nag naa am damaa bëgg nga fexe doon ne man maay mbër mi parce que am nañu deux Ziga mu ngi ci bonne voie am nañ ci Mori mu ngi ci am na Agago mu ngi ci biir. am nañu kii nu mu teeti benn booy bu ñuy wax Saloum Junior laa ko tuddee kooku su teelee jàng bëre góorgóorlu ci làmb dana doon na sori ji am nañu nag benn champion boo xam ne jógee daf fi mu nekkoon ñëw ci ñun moom it ñu ngi koy souhaiter bonne chance muy ndongoloo ku ne xam na ko xam nga amoon na bon départ waaw léegi nag ba muy tootoo yëw na fii ñu waxtaan ñëw daal benn mag laa bëgg mu toog sama wet ma ne ko fii de ñun dàquñu kenn waaye nag téyewuñu kenn it ku ku ñëw ñu ànd ak yow ku bëgg a it ñu ne la yoon waa ngoog amul nii amul naa parce que dama samay soxla samay mbir dama ko wéerul ci ñoom fii ku fi noppalu rek sa njaboot a barkeel booy. ku fi noppalu dépasse courant ndox yëpp wàcc la daa fekk sa njaboot man dara <laughs> bu sa njaboot mënul dara ba tey dépasse wàccu la courant ndox wàccu la booy loo mën mënoo dara sant yàlla rek a fi nekk tubaarkàlla comme ñun dañoo dëkk ba luy tubaarkàlla yàlla jox lañu teraanga ah alhamdulilah sama doom ak yu góor yu jigéen yëpp mokkal alquran sama biir kër ah samay doom di góorgóorlu day na sant yàlla man fii ne damaa war a fe damaa war a daag ba bay dóor pooj ndax da kontaan bay dóor pooj laa war def booy wallahi ah yotam laa ilaa ay waa jire léegi ñu ñëwaat ci làmb fi mu toll nii néewoon nañ làmb am na ay jafe-jafe. fi mu toll nii daa mel ni situation wu làmb mu ngi réglé parce que Père Gaston ñëwaat na euh, tëgg nañ ay combat yoo xam ne ku ci mel ni Papa Sow ak Siteu ma bëggoon moom la dama ne Père Gaston tëgg na combat am na ci yeneen combat yoo xam ne jot na taxaw yu mel ni comme Papa ak Siteu yoo xam ni combat bu neex la euh, ku ci mel ni kii di euh, Balla Gaye ak ak Bombardier ak Gris Bordeaux am yeneen combat yoo xamante ni taxaw na ku ci mel ni soq ak Gamou Gueye combat yooyu léegi dama bëggoon ñu waxtaan ci combat soq ak Gamou Gueye nan nga gisee combat yooyu. mais combat bu dàq ko ci komba boobu. combat bu ko dàq ci komba yi gisuma ko. gis nga booy gàmmu Gueye moom. Euh, talent boo xam ne bii. làmb doxul. mais bu làmb doxoon foo déggal ma di ko fa déggi parce que man yor naa Baye Ndiaga Baye Ndiaga ci man la nekkoon ba mu ne nañ ma jox gàmmu Gueye damaa bëgg na mbëri ma ne ko kan fii la toog ñu waxtaan ci. ma ne kan mooy Gamou Gueye mu ma ki daanoon la Lac Rose bi ma ko waaw ma ne ma ko ma ne kooku booy boobu ma ne ko booy mooy booy tëngëj ma ne ko ah, booy boo ko jëlee am nga combat de waaw nii laa ko waxee ma ne ko boo ko jëlee am nga komba de waaw waaw boo ko jëlee sérieux combat nga am waaye ba mu demee nu mu gis gis nga ko bëri kay naa la booy lu ma tere teree bàyyil parce que booy boobu su raamoon rek doon nañ ko dégg moom it bàyyi njaga boobu parce waaye la ma ko doon liggéeyal su ko doon teg ko ci kanam loolu la ñu jeexalee ñoom ñëpp waaw mais nag xam nga xale yi dañuy teel a yàkkamti rek dañuy teel a yàkkamti ak suñu dégg supporters yi di la ba wax ba ngay dem. gis nga combat yi yi Gaston Mbengue def Gaston Mbengue bu fi lam moo génne Modou Lo moo génne Balla Gaye moo génne Boy ay Papa saw moo génne ñoom Boy Sey moo génne ñoom Balla Diouf xale yooyu yëpp moo leen génne ñoom sos te moo leen génne. kalaaf gis nga ni lamb dee nii tii boobu la war na andiwaat. man su ma doon laaj conseil dama ko naan da nga indi du tee nga tëgg ay grand combat Balla Gaye dafa war a bëri Modou Lo dafa war a bëri mbër yooyu mag yooyu dañoo war a bëri ak ku mel ni Tapha Tine dafa war di bëri dégg nga Bombardier ñooñu dañu war a bëri waaye la la la doon dëkkali làmb ji combat yi neex noonu mu jël classe ñoom soq googu ak classe su ñoom Gamou boobu ak classe su ñoom général général booy booy Fass boobu. boo xam ne kenn mënu ko bañ waaye Tapha Tine niveau bi mu àgg la. xëy na kii nag bu daanee daan dee leen fekk si parce que boo gisee ni mu def Gris 2 def ko Elton attention de mu ngi seen mbir de. kon léegi kon lañ ko war a jox ci làmb naataango. ñëpp ñëpp képp ku nangu xanaa ku nangoo bëri way nag bu ñëwee ñu ne mm, fixé wu ne maa ngi nii te kenn nangu ko jël ku muy bëril booy. dañ koy tënk rek. Euh, dinañ ko yeggale incha allahu rabbi ginnaaw père Birahim moom mu ngi fi ñu ñaanal ko yàlla suñu borom may ko gudd fan lool te mu ànd ak wér ba bépp naal boo xamante ne fas yéene na ko suñu borom kàttanal ko ci dooleel ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee ñu ànd ceeg moom.